ñun ñooy rëg-rëg borom mari waaw jeex na tàkk guy gi de neewoon na ñooñu ñuy moom guy gi du ci bokk ah loolu ba ñu yegg ca yeggaguñu ca fi mu nekk ci wër-wërloo bi la ñu toll wër-wërloo bi mooy lan wër-wërloo bi maanaam daal jàkkaarloo ku ne wax dox sa morom foofu la ñu yegg si mais yegg seeguñ ci foofu ngay wax guy gi nee na sempi yëkkati dur suuf dana ah waaw moom de xalaatam la wax rek waaye ñun li indi du ñu dem guerre di ko wax dañ koy nëbb ba gis ba ñu def ko. père combat bi combat bu stratégique la. oui rëg-rëg gën a violent. Hmm. gën a am stratégie de combat ndax MMA bi muy def. waaw ak guy gi dafay mbër moo xamante ne que pour mu bëre yow foog mu taf la liggéey sa kaw. Hmm. ñu daal li ma la waxoon moo ci nekk. kenn du dem guerre di wane say arme. Hmm. li am solo nag mooy waaj ñu ànd ak ñi ñu war a àndal ñëpp. di ñaan yàlla may ñu dem ca bis ba. foofu laa mën a yem. jërëjëf kaay leen xale baa ngi noonu am na champion buy dugg si kaay leen mbokk yi kàggu xale baa ngi noonu. ndeysaan mu ngi noonu moom doomu caaray bi mu ngi noonu saar xale bi ngi noonu moom mi nga xamante ne preuve yi mu waroon def yëpp ci li traditionnel def na ko fa bërek ay moroomam bërek ay ay ay ay tey nag vraiment mu ngi war a xale bi nga xamante ne mooy doomu géejawaay bi muy guy gi moom ma nga noonu moom rek rek barki démb gis ngeen sport bi nga xamante ne mu ngi koy pratiquer ci MMA bi liggéey bu am solo bi mu ci nekkee moom rek rek waaye ma nga sol yére bu weex am na leneen lu mu téye ci loxo loxo ba waaye gaa yaa ngi koy jox am na lu mu takk ca baat ba moom Reug Reug gis nga béjjën gis nga la mu téye ci loxo bi macha allah muy wane ni làmb lépp dek décor la lii ci làmb la bokk yàgg-yàgg sol jasineer laal parfum teewul mbër ngay doon du ñàkk nga loo sengoor bi laal <laughs> ndaal jëf yi nga war laal daal gis nga Reug Reug gi doon xale bi ndeysaan kàggu gis nga làmb ngi nii ndeysaan mais xaw ma Reug Reug ku ko wat waaye war na koo dolli xaalis ndax euh, vraiment <laughs> def na dégradé laal benn trait ci elba macha allah mu ngi bopp mbër daal bopp mbër la mën a doon. saafara bi du ñàkk bu cay xëy saa su de. <laughs> hey GFM entertainment. boole ngeen ay xale yu garaaw. saan gis nga leen ñu ngi noonu. rëg-rëg xaw ma fan la war a wàccee rek. gauche walla droite ma ngay muuñ. Ndeysaan ma ngay muuñ. gis nga oto bi moo yoone bis bee toll foofu ndeysaan rëg-rëg ak guy gi combat boobu du yomb ñoom ñaar arène nationale dina jar lu ne xoolal la rëg loxo yaakaar naa ne fi mu oh. toll seen daje ñoom ñaar du yomb. man gis nga ñu burge wala ngay wax. am na fas bu ñu koy takkal ci baaraam ba. ndeysaan gis nga kàggu gis nga fas ba takk nañ ko ci baaraam ndi ba. rawatina ci baaraam bi ci digg bi. moom lañ ko fas. ñu ngi noonu di ko fas gis nga. ka koy fas am na galañ bu mu téye ci loxo ba. moom Reug Reug ma mel ni daal tey la combat bi bis bee toll noonu wala adversaire bee toll noonu wala làmb ji moo laaj loolu ñoom ñaar yëpp mbër yi bëre ay mbër lañ yoo xamante ne mbër yu fonk mystique lañ Reug Reug fonk na bis fonk na mystique bëgg na làmb guy gi mi bëreel. maa bëreeg Ama Balde rek doy na maa bëreeg Zos doy na maa bëreeg Tafatine doy waaye gis nga tey bëri na xale boo xamante ni jël na ko muy rëg rek xale la buy def ay preuve rëg rëg nag waxoon na wax ju am solo nee na boo sànnee onze ci géej ba jàpp jën mu war a yéeg ci kees gi nooy def yéegal mu ne kon dañ koy yéegal rek mu dem <laughs> ndeysaan rëg rëg fan lay jaaree kàggu làmb garaaw rëg-rëg guy gi ñu ngi de ñu ngi yëgal léegi ni guy gi ah ma nga ca yoon ba ndaysaan ku nekk ma ngay wàcc ku nekk a ngi cay wàccaay ndaysaan ñu ngi noonu waaye rëg-rëg ba léegi wàccagut ci oto bi waa ji di rëdd bekk suukar la bekk suukar la jël teg ci côté bu nekk benn ñaar ñett ñeent juróom euh, juróomi bekk suukar juróom benn bekk suukar lañ teg ci bunt bi maa la ko wax juróom-ñaari bekk suukar nag xam naa ni <laughs> ñuy ñaan war nañoo xam juróom-ñaari bekk suukar ñu teg ko ci bunt bu mbër di dugg si loolu tegtal bi lan la bekk suukar suukar moom ñëpp xam na nañ dafa neex kenn bañu ko saa yoo xëyee di nga laal lu saf suukar ak koo munti doon ci àdduna moom lu moo xam mu néew moo xam mu bari mais di nga ko laal oto bu Reug Reug a ngi noonu di dugg si mu ngi noonu di dugg si biir TFM ndeysaan waxe mag dem dañ taan maa la wax lii war na mbaab ak moom fu mu toll liggéey bi liggéey bi xatu ndeysaan gis nga li nga xamante ni waa GFM def nañ ko may presse bi donte cinq minutes la sax Reug Reug wax ko ñoom dugg ci biir ñu yaatal seen liggéey wàññul ci liggéey bi dara ma ne oto lu mu xat-xat nuyul ma saa ndey xaj na ci dëgg neexul daan na dara yàggul baa jiili. non Gouye Gui la toujours confiant nag moom komba da koy jox ak xam te du tàppe da ah. mm, du ragal mu ngi noonu gaa ngi def formalité yi mu wàcc. <coughs> ah dafa belli li li la wolof naan Fatma ak Belli. <laughs> looy ree daba kura. damaa xam ne xale yi dañoo pare ay jesneer la ñuy laal ku gën a leer nga ne kii la. lay lay la guy gi aw jën la indi. guy gi sànni na jën wa xoolal ma jën wi ndeysaan ma si firiir. trois pièces la def. garaam bu bu la def rek def jar garaam bu bu rek rek def trois quart kii def blanc kii def bla loolu de mooy couleur couleur la kii di woote jàmm kii di woote salaam ñoom ñaar ñoo bokk réew mi ndeysaan guy gaa loolu am na lu mu génnee ndeysaan bi sa tool loolu nas li ma bëgg a xam mooy mooy kol bi kol bi non li Palestine la waaw damay soutien Palestine quoi loolu la rek mais dara quoi Palestine la rek yaa ngi dégg nas noonu kon la ma leen doon wax naan leen nas a ngi soutenir Palestine wane na ko ci kol gi wax na ko. waaw lii moom lii Palestine la rek waa waaw Free Palestine loolu rek la quoi meeru leneen quoi. jërëjëf nasa gi loolu ay ca oto baa ngi dem. fri Free Palestine. Ndeysaan ñu ngi noonu. oto baa ngay dugg. c'est mon cousin. kan la. waaw maa ngi leen di fay. Hmm. di wax onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli Yonent bi di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla na leen yàlla xaare àjjana firdawsi di leen nuyu yéen ñi ñëpp yan site internet yi maa ngi leen di nuyu hmm. waaw. tey nga war a dajawaat ak sa adversaire guy gi ginnaaw la euh, laa guerre des mots ci li ngeen jógee barki alxuraan dooma daan billaahi wallaahi taala bu ma bàyyi ma bàyyi lamb tey na ngeen am frontal yéen ñaar bët ak bët. Hmm. waaw loolu lu taxoon ñu koy def muy maanaam combat bi taxaw comme que taxaw na amatul leneen lu ma siy wax waaw loolu la woon. Hmm. guy gi adversaire de taille la rëg-rëg entre temps daf fi jàng beneen xeet sport ba di ko pratiquer ba nekk ci daaraan muy MMO. mën combat rapproché te bu njëkk li gars wax mooy Reug Reug bëri bi moo gën a bënn ka xeex bi est ce que tey combat bi dafa bokkul ci full option mooy jàng xeex ak mën a xeex pour mën a dóor mu daan mën a cam wala xeex bu jiwaloo pour buntu bëri. waa loolu lépp dañ koy delloo euh, yàlla suñu borom moo am luy xew suba. ñu naan man maa ne naa maa ngi préparé bu jour ba bu lamb lamb ji lu mu laaj rek dama koy def incha allah. Reug Reug dafa changé communication par rapport. waaw mais dañuy ñaan yàlla chaque jour ñu màgg.

you kon ñu ngi koy ñu ngi koy dañ ñun lenn rek lañ koy dañ koy ñaanal jàmm dem na ba may ñu chance li si des nag du ay wax géew ba la incha allah. waaw Omar gis tey yow jël nga mhm. di ko ñaanal jàmm. di ñaana sama bopp jàmm ba bis ba rek yàlla suñu borom may ñu ndam. dafa am lu mu wax benn déclaration bu wax. dafa mel daf la fekk si li buur wax léegi. Mm-hmm. sport bi ngay pratiquer sport de mm-hmm. moom fi mu nekk sax ay gants lay fanaanoo. Mm-hmm. na ba mu ba mu neex. waaw yàlla baax na lépp dañ koy bàyyi si loxo suñu borom rek. bis ba moom lu mu laaj rek dañ koy def incha allah. nee woon na upaajam gëmul wax boobu. da ngay théâtre ndax moom ñi ngay upaajam <laughs> moom guy gi du ci bokk. waaw loolu dañ koy bàyyi wax ci moom mais lépp man moom amul lenn lu ma si wa you know man uh, yàlla sunu borom moo fi ne. lu dul yàlla rek neen la. rappel moo leen wàññil dara. du dara suñu grand frère la dañ koy jox cër jox ko li mais dinañ koy dañ koy res lépp nañ koy jox bët bi ñuy xoolee grand frère moom nañ koy xoolee mais jour ba enceinte bi grand frère du fa am. wax na ni dafa bëgg rëg-rëg <coughs> moom guy gi bi bëri woon ak Ama Baldé 2012. Mm. moo fas yéene ki nga xamante ne mooy rëg-rëg nee na dafa bëgg gis rëg-rëg bu oos bu am doole bu taxaw bu bëgg a bëre ak làmb ji yoo loolu loo ko ci wax. waaw loolu am leen lu ma si wax man moom man li ma li may def. man li may def laa la waxuma ay guy gi 2012 guy gi guy gi la rek ñëpp bokk yam 2012 ak 2021 lépp benn la rek guy gi la tudd ba léegi. you kon nag am na différence amul différence man loolu sóoraale wu ma ko lu ma man lu ma intéressé. ndam laa moo ma entraîné si kattanu suñu borom dama koy am incha allah. sa mm-hmm. dem fa nga xamante a mën mm-hmm. loolu sama staff ngeen ciy wax man moom staff laa am wax rek moom laay def incha allah.

côté lépp bokkuma ak ñoom ay business bokkuma ak ñoom bëre. waaw mais daal dañuy ñaan yàlla suñu borom may ka fekkee may ma fekk ba bis ba yàlla suñu borom may ñu ndam incha allah. loolu moom amul len lu ma siy wax loolu gëm-gëmam la xam nga ma li xew suba encore une fois dama koy wax lii xew suba yàlla suñu borom rek ak xam. yaa may dégg waaw taa taa xam nga tey ji lii xew suba yàlla suñu borom moo koy xam man manu ma kaa xam moom mënu kaa xam mais nit ki booy waat na fekk li ngay waat nga tekk fu dëggu. mais dafa gëm li non déglul lu muy waat laa xam nga yaxut dafa doon beneen affaire bu garaaw la euh, gis nga làmb làmb chaque jour man ngaa daan ku la man yaa may dégg kon jaru muy nekk fi di waat nan bu ma ko daanee doonam ñu ko loolu existé wul xam nga loolu ba bis ba incha allah. yàlla suñu borom may ñu ndaw jërëjëf rek jërëjëf. grand champion. Euh, ay mbaram mari na ma ko. <laughs> ay ndeysaan rek rek ndeysaan bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ban sant yàlla julli ci sant sama ñaari waajur di nuyu sama sëriñ Saase ak borom digal di ñaan Sénégal yi fi jàmm yàgg ak wér di ñaanal sama xalifa général Baye Cheikh Ahmad na ko yàlla bu àjjana di ñaanal sama xalifa général Ba Abdourahim Seck yàlla na yàlla olofal yéen bi di nuyu kilifa diine yëpp sëñ Mountakha Bassirou ñu koy ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko fi ba ci kanam ak ñi leen di ñaanal yàlla na yàlla leen fi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 waaw ñun moom làmb moom day wax day wax rek. Mm-hmm. moom li mu wax moo ëpp lépp moom nee na bu ma ko daal day bàyyi làmb loolu moom sama noppam may leneen dama déggu ma. Mm-hmm. man li ma waxoon waxoon naa ko pare. loolu maa ngi waxoon ci ay weer ci ginnaaw. maa ko waxoon si Asim mais li may wax li nekk suma kanam ñu may laaj. ci moom li ma jëm ci moom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 mais nag dañ ko ciy ñaanal lim ci jublu rek yàlla may ko ci parce que euh, international la waaw te te te te te Sénégal te mi ngi def ay preuve am mais bu loolu jàllee buur.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 que yow yow yow Paul bii du ah? ah, ah. raw. tey la raw.